zawya Maam Maodo bee ca Ndar zawya Maam Maodo biir Ndakaar zawya Tiwaawan ëmb leer bi mu tasiw ko aw ñoñam yéen ngi seetaan Al Maktoum مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم سبق نازل صراطك المستقيم وعلى Muhammad.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 والخاتمة والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق نازل الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاك بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاك بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ليسرع بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ليسرع بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صلح على أسرع برحمة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صلح على أسرع بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الأسباق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والإقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق Amad Fall Dieng ngi nii wax dëgg yàlla bu rek man bu ku gis nen ni ngi tonton tonton Chérif mii dafa dafa dafa dalal sunu xel tonton Chérif ma ne da nga dalal sunu xel macha allah lu lu xew rek dinañ la gis xalifa bi fu mu mënta euh, dem rek dana la yabal ñu ngi lay ziyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay waaw ba bër ki demb nee na daf ko gént nee na am na ku ko gént ca Maroc sëñ Muntaxa nee na sëñ Muntaxa seet si ko ndar nee na mu ni ko sëñ Muntaxa mi ngi lay seet si mu ni nee na barki démb rek dafa am ku gént sëñ Mansour ca Maroc ni ko sëñ Muntaxa mi nga xam ni mooy xalif général des Mourides da lay seet si nee na mu ni ko Chérif neel Chérif na dem teeru ko teerul ma ko tatagal ma ko mu ne ko ana Chérif mu ne ko mi ngi fi nee na naka ko gàttandu ak moom macha allah loolu dañ koy sant yàlla bu baax bis bu bii de dal na xel ndax tey di ajjuma di 31 décembre jeexal at mi ñu ñëw fii def xadaratul juma li imam wax léegi liñ fi liñ fi jàng liñ fi wàcce tey ku yóbbu rek luy sa yitte rek nga ñaan waaye ñun mënuñoo ba ñàkk a baaxantal ndax ku xam kër gi rek xam ma ak sëriñ Moustapha Sall ibn sëriñ Abbas yal na yàlla yokk leeram ci barzak xaritam yépp a ngi fi toog wëllëreem yépp a ngi fi toog te bi mu génnee àdduna Moustapha mii wuutu ko ci liggéey bi mbooleem li nga xam ni Serigne Moustapha Sall daan na ko ànd ak ñun Moustapha mi ngi koy ànd ak ñun jox ñu cër bi ba pare jox ñu cëru boppam moo tax lu nu jàppoon rek bàyyi nañ ko ndax bis bii dafa rëy ci ñun taxawaay bii dafa rëy ci ñun kër sëñ Abbas luñ fi woote rek incha allahu rabbi dinañ ko teewe ndax doxal kóllëre gi ba keroog ñuy taseeg sëñ Moustapha ci aljana yal na ko yàlla def te sëñ Mansour mii yàqu ci lenn ndax li ñu gën a dalal sunu xel mooy heure bu nu ko nuyoo mënuñu ñang loola sant yàlla la boo amee kilifa mu bari njaboot njaboote ñépp te boo ko nuyoo mu jaar sa tur jox la sa yitte jox la sa jot waxtaan ak yow diisoog yow ñun de xadara ba ñu jóge macha allah nawloo nañu sëñ Mansour Sall nawloo nañ ko boo ko rek ñu ne borom xam-xam kon lolo dal na xel kon ñu ngi leen di ziaré yeen ñëpp ah di wax suñu mbégte tonton Chérif mii ñu fi gis rek ndax suñu mustapha suñu ak mustapha umpul kenn di ñaan yalla waajuram wu jigéen wii ñu yalla bayiko fi ba lepp li nga xamni ni nañ ko ci mom suñu borom defal nu ci barke sayidina Mohamed barke Cheikh euh, Serigne Abbas Sall di ziaré bu baax oustaz Mbay mi imam Mbay ma ng koy déglu rek demb muy wax waxtaan wo xamni ni dama ko teewlu dallu ko té lolu mo gëna neex ya baax joo fekkewul dara dara dara wecciwu wuko muy wax ci serigne Mansour di ci sédé lo xamni ni ñun fiñu tok xamna ni mom li wax dëgg la kon yalla di ziare bu baax sama xarit sama wëllëri oustaz Seck mii nga xam ni nee na moom bu doon conférence ak fu mu mënta conférencé man ma nekk maître de cérémonie bi da koo gënal ci lu ne loola ak yëg la te macha allah yëg-yëg googu la ñuy am ci moom sama directeur général maa ngi lay ziare bu baax Koulibaly yàlla na yàlla fay la imam imam euh, ñu ngi lay ziare bu baax imam Dia euh, imam alxayria moom liggéey bi yépp ñoo ko ànd lan nu bàyyee woon diis na lool waaye dañ koo taxawee sëriñ bi sàll ñu ngi lay ziyaare bu baax pa sëriñ Pape Mayoro Sall yéen ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ne mi ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp ne di leen ndokkeel yéen ñëpp di kàddu yi ma kanamu kilifa yi toog. di jéggalu kàddu muy yëkkati ci kanamu kilifa yu tedd yi toog. fekk dafa fekk rek. ne dafa fekk rek ni. am na jotaay yoo xam ne bu amee. am yu fa am. ne dafay am yëg-yëg yu fa am. yëg-yëg yooyu nag. ne te yëg-yëg yooyu nag. munoo ko nit ko. ne nit ba mu mu wax ko. ne yow mi ko yëg rek yaa ko mën a wax. ne donte ni sax doo mën a génnee lépp ba mu jeex. ndax la ngay yëg. ne mën nga bañ am ay tegtal yu ko mën a tekki. ne loolu dong moo waral kàddu yi. ne nuyoo bi nag. ne mi ngi ciy jiital Sërif Mouhamadul Habib Sall. te yàlla dafa dogal. ne yàlla dafa dogal. ñetti jëmm yi nga xam ne. ne ñetti jëmm yi nga xam ni. mën naa wax ni ñoom ñoo doon généraux ne mën na wax ni ñetti jëmm yooyu ñoo nekkoon généraux wu sëriñ Mansour. ne ñoom ñoo fi daje tey. mu nekk mbégte mu rëy. ne mu nekk mbégte mu rëy. muy Chérif Mouhamadul Habib. ne muy Chérif Mouhamadul Habib. di sëriñ Pape mayor Sall. ak professeur Oustaz Seck. ak professeur Oustaz Mouhamad Seck. ñoom kenn ku ci nekk. ne ñoom kenn ku ci nekk. dafa am cër boo amoon ci sëriñ Mansour. dafa am cër boo amoon ci sëriñ Mansour. ne boo xam ne bokkul ak sa ciru morom. li may seede ci kanamu mbooloo mi rek. ne li muy seede ci kanamu mbooloo mi. ne li tax muy wax lii ne am na loo xam ne ñoom mënuñu ko wax ñoom duñ ko mën a génnee ci seen làmmin waaye ne bu fekkee da nga jaayanteeg nit ne jaayante boobu am la mu jur am ñu ko seede nee yoon mooy laaj. nee bu mbooloo mépp toogee. njaboot gi toog. nee te ñoom ñu xamoon seen ànd ak Serigne Mansour démb. nee dafay laaj. nga wax leen nag jaayante boobu ñu jaayante woon lan la jur. nee ndax nag du ñëpp ñoo jaayante woon de. ne Thierno Mouhamadou Habib. dafa nekk rakk dafa nekk rakk ci sëriñ. ne dafa nekk rakk ci sëriñ bi. nekkoon xaritam. nekkoon xaritam. ñun ñu xam ci lu bari. ne ñun ñu xam ci lu bari. sëriñ bi seede ko ci place yu bari. ne sëriñ bi seede ko ci place yu bari. benn benn dong laa ciy wax. ne tey benn rek la ciy wax. mooy ba mu tëddee hôpital. mooy ba mu tëddee hôpital. am lu ko yàlla wan. am lu ko yàlla wan. mu am ci mbooloo mu mu ne. nee mu am ci mbooloo mu mu ne. mbooloo mu kawe. mbooloo mu kawe. mu toog ba mu yàgg mu ne ma mu ne ma Moustapha. nee mu toog ba ci yàgg mu ne ko Moustapha. jëmm ji ma gis de kii kii euh, euh, de Serigne Cherif mu ne ko jëmm ji ma gis de Serif Mouhamadul Habib la de. mu ne ko mu ne yaa ngi koy gis. mu ne mu ne ko yaa ngi koy gis. mu ne ko déedéet gisuma ko de. mu ne ko gisoo ko gisoo ko ak jëmm ji. mu ne ko gisoo ko ak jëmm ji. mu ne ma nag xamal mu ni ko nag xamal ni nag shérif nag sama xarit la te ba koy wax nee te ba koy wax xaal ba mu tolloon xaal ba mu tolloon weesu woon na di wax waxu bakkan weesu woon na di wax waxu bakkan mu ne nag mu ne ma nang ma ko gërëmal nee sëriñ bi nee ko nang ma ko gërëmal te nga xam ne sama waay la nga xam ne nag sama waay la sama xarit la sëñ Mayoro nee sëñ Pape Mayoro la sëñ bi wax moom. nee moom la ci sëñ bi wax moom. ñëpp seede nañ ko. nee ñëpp seede nañ ko. benn bés dafa wax sëñ bi dafa wax sëñ Mayoro. nee benn bés sëñ bi dafa wax ci sëñ Mayoro. am sama benn xarit bu ko dégg. am benn xaritam bu ko dégg. mu ne mu ne ma kan mooy sëñ Mayoro. mu ne mu ne ko kan mooy sëñ Mayoro. mu ne ko kooku rakk la ci sëriñ mu ne ko kooku rakk la ci sëñ bi. mu ne li ko magam bi seedeel tey. mu ne li ko magam bi seedeel tey. jar na jar na liggéey ba dee. jar na liggéey ba dee. ndax ndax ndax sëñ Mansour dafa ni. ndax sëñ Mansour dafa wax ni. bu sëñ Abbas wàccoon. bu sëñ Abbas wàccoon. laaj ko nekkoon naka mbir yi nu mu demee. laaj ko naka mbir yi na mu demee. naka kër gi. naka kër gi. ko woo leen sëñ Mayoro danaan woo sëñ Mayoro. nee danaan ko woo leen sëñ Mayoro ngeen laaj ko. sëñ bi nettali ma. nee sëñ bi nettali ko. benn benn jotaay bu ko yàlla wan. benn jotaay bu ko yàlla wan. moom moom. sëñ Abbas. sëñ Abbas. ak sëñ Mayoro. ak al imam ma teg ci oustaz mii nee mu deg ci professeur oustaz Seck. benn bés mu ne ma. nee benn bés sëñ mi da ko wax ni. gis mu ne ma oustaz. mu ne ko gis nga oustaz. sëñ sëñ Abbas daf ko fonkoon ba yéem ba ñëpp yéemu ci. nee sëñ Abbas daf ko fonkoon ba ñëpp yéemu ci. ñi dégg nañ turam lu bari. dégg nañ turam lu bari. te gisuñu ko. te gisuñu ko. am ñoo xam ni. ñoo xam ni. daf leen jaraloon. ñuy dagg paas. waaye wala kooku def koo nëbbu rek. waaye la ci sëñ Abbas wax. waaye la ci sëñ wax. dafa mujj di xoolaat. ne dafa mujj di xoolaat. mu ne xanaa sëñ Abbas dafa gis ci oustaz ñun lu ñu gisul. mu ne xanaa sëñ Abbas dafa gis ci oustaz ñun lu ñu gisul. ñett ñooñu nag. ne ñett ñooñu nag. nga xam ni ñoom ñoom ñoom la sëriñ bi wóolu woon. nga xam ni ñoom la sëriñ bi wóolu woon. ku nekk am fu ko féete woon. ku nekk am la féete woon. fu yebal nit. nee te fépp fu mu fi yebal nit. buñ fa demee xelam dal. buñ fa demee ñoom ñett xelam dafay dal. bu toogee ci jotaay. bu toogee ci jotaay. kenn ku ci ñëw. kenn ku ci ñëw. mu ne alhamdulilah. mu ne alhamdulilah. Euh, jotaay ba taaru. jotaay ba taaru na. ñooñu nag bu dajee fii. nee ñooñu nag bu ñu dajee fii. dama naan sëñ Mansour ci jotaay. nee Moustapha nee danaan Serigne Mansour baayam mi ngi ci jotaay bi. ndax jëm yi fi teew ndax jëm yi fi teew yëpp. koo ci xool rek. koo ci xool rek. da ngay gis ci moom Serigne Mansour. ndax ndax ndax euh, werd yi paase nii. ne ndax werd yi paase nii. fii la toog. ne fii la ñu toog. muy waxtaan. ne muy waxtaan. te la mu doon wax. ne te la mu doon wax. boo bi ma ko dégluwaatee. nee mu sëñ Moustapha ne ba mu ko dégluwaatee. mooy bàyyi leen xel. mooy bàyyi leen xel. ne mbir yi. ne mbir yi. day soppeeku ndànk-ndànk. dafay soppeeku ndànk-ndànk. doo ko yëg. te doo ko yëg. da di naan weer da ngeen di da ngeen at mi dee na. ne dangeen ngeen di xëy di feetal at mi kat dee na. fekk yow yaay dee dee yu ndaw. fekk ne yow sa jëmm bopp yaay dee dee yu ndaw. doo ko yëg te doo ko yëg. ba dee gu mag gi ñëw ba dee gu mag gi ñëw. loolu lañ doon jàngal. ne loolu lañ doon jàngal. ba ciy teg sunu benn wëllëre boo xam ne. ne mu ciy teg sunu benn wëllëre boo xamante ni. di góor gi Ousmane Ba. di góor gi Ba. kii muqaddamu Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu Medina Gounass. ne góor gii toog muqaddamu Thierno. Euh, Thierno Saïd Ba bu Medina Gounass la muqaddamam la. moo ko nekkal Ross Béthio. ne moo ko nekkal Ross Béthio. yàlla xamale ko sëriñ bi. yàlla xamale ko sëriñ bi. ñu toog benn jotaay rek. ne ñu toog benn jotaay rek. ku ne mel ni dafa xam moromam lu yàgg. ne ku ne mel ni dafa xam moromam lu yàgg. ku jël sa morom def ko sa biir xol. ku ne jël sa morom def ko sa biir xol. ñu seq lu bari. man tey bi mu bi mu nee day ñëw. nee tey ba mu waxee dafay ñëw. dem ci lu bari. nee xelam dafa dem ci lu bari. waaw loolu danaa ci ñëw ca kanam nag. nee loolu dana ci ñëw ca kanam incha allah. teewaayam bi. nee teewaayam bi. sirru bu mag la. nee sirru bu mag la. danaa ci ñëw ci kanam. nee dana ci ñëw ca kanam. di ci teg eh, imaam eh, imaam Abdoulaye Mbaye. nee di ci teg imaam Abdoulaye Mbaye. nee imaam Abdoulaye Mbaye. ma dama koy déglu ba mu yàgg. nee da koy déglu ba ci yàgg.

loolu martaba la. nee loolu martaba la. te tamit cër la. nee te loolu tamit cër la. dafa dafa wane boppam rek. nee dafay wane boppam rek. moom itam teewaayam moom itam imaam sa teewaay fii. dañuy fàttali lu bari. nee dañuy fàttali lu bari. ñoom eh, Chérif eh, Chérif eh, Chérif Aydara Ibrahima. nee Chérif Ibrahima Aydara moom it. Ah, Haji Badara. ñoom Haji Badara. bu ma bu toppee lii du ma ma du ma pare tey. nee bu toppee di lim rek du pare tey. ndax ci suba ba tey ñu nee ci suba ba tey ñu fi toog. daf may wóor ni. nee daf koy wóor ni. teewaay yi. teewaay yi. yàlla rek la. yàlla kese la de. amul leneen lu ko laaj. amul leneen lu ko laaj. dog yi nag. nee dog yii nag. am cosaan. nee dafa am cosaan. ndax sëñ Mansour. nee ndax sëñ Mansour. ñoom dañoo amoon seen daayira xanafiya. ñoom dañoo amoon seen daayira bu tudd xanafiya. ñu daan def ay tuur. ñu daan def ay tuur. di daje. teyee kër kër kër sëñ Mansour. nee bu teyee kër sëñ Mansour. bu subaa kër kër kër bu subaa kër tonton Soumaré. bu subaa ñu dem kër Pape Cissé. léeg-léeg ñu dem kër Pape Cissé. ñu dem kër Ndari Touré. yéen saa yi di ko ayante. nee di ko ayante. ba benn bés. nee ba benn bis rek. bésu bésu le le premier janvier. nee bésu le premier janvier. mu mu xëy di ziar Mara nee sëriñ bi dem di ziar Sëñ Abbas ca Jëppal. mu ñëw mu ñëw di waxtaan ak moom. ne mu yegg si di waxtaan ak sëñ Abbas. mu ne ko waa démb lu xewoon ci ci réew mi. sëriñ bi ne ko waa sëñ Mansour démb lan moo xewoon ci réew mi. dara. man dara. bari ci dëkk bi. bari na ci dëkk bi. mu ne ko démb 31 décembre ne ko 31 décembre. mu ne man de ci xam. Abbas ne ko de na dafa di nelaw. dafa rek di nee na mu gént ñaari jëmm. nee mu gént ñaari jëmm. kenn ki tudd Malick. kenn ki tudd Malick. kenn ki tudd Cheikh. kenn ki tudd Cheikh. nee na nee ba mu ba mu nee ba mu yeewoo. nee na mu rafet njort rek. nee mu rafet njort rek. xam naa daal. nee xam naa daal. Seydina Cheikh laa gis. Seydi Seydi Ahmed laa gis. ak ak ak Seydi Hadji Malick. maam Seydi Hadji Malick. mu naa rafet njort rek. waaye nee na bi ma ma yeewoo nag. ci fekk dëkk bi coow laa ngi bari. ne ba muy xëmbalikoo ba yeewu fekk dëkk bi coow laa ngi bari. nee na ma ne xaaral ma jël sama course def ay awraat. ne mu ne xaaral ma jël sama course def ay awraat. nee na ba mu toogee ci biir nekk ci biir wérd bi. ne ba mu toogee nekk ci biir wérd bi. la la am nag baat bu wax ak la am nag benn baat bu wax ak moom. waaye nee na ka wax ca ka wax ca saasi rek ba mu waxee. xaw na xaw na gëlëm. nee xaw naa gëlëm. waaye muy teewlu wax nee muy teewlu baat bi rek. mu wóor ko ni. nee ba mu wóor ko ni. kaddu yooyu. kaddu yooyu. kaddu Cheikh Sidi Ahmed Tidiane la Chérif. radiyallahu taala anhu. di ko xamal ni ko. nee di ko xamal ni ko. sa dëgg-dëgg. sa yaay sama doom. yow sëriñ Abbas man Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yaay doom. nee sirru. moom daal jaaxal ko lool. nee sëñ bi nee na mbir yi ko lool. mais ki nettali sëriñ bi. nee ba mu koy nettali sëñ Mansour. ci saa sëriñ bi ne ko. nee ci saa si sëriñ bi ne ko. ñun de est ce que may nga ñu ñu koy màggal. ñun de est ce que may nga ñu ñu koy màggal. mu ne ko may naa leen ko. mu ne ko may naa leen ko. loolu moo indi daje bi. nee loolu kat moo indi daje bi. bëgguma dugg ci yaatal bi ndax fii dafa guddi. nee bëggul dugg ko yaatal parce que dafa guddi ba noppi. xale xalaatee lan la ñu war a def ci programme guddi gi. ne ñu xalaatee lan la ñu lan lu ñu war a def ci programme guddi gi. sëriñ bi indi téeméeri junni ixlaas. ne sëriñ bi indi téeméeri junni ixlaas. moom moo xam nag fa mu ko jëlee. moo xam nag fa ko jëlee. dem na ba dem na ak moom. ne dem na ak moom. danaa wax naan. da daan wax naan. ku koy def te joxu ko. ku koy def te joxu ko ko. doo ci am dara doo ci am dara. te bu la koy joxi tamit. te la koy joxi tamit. dafa am condition. dafa am condition. waaw sëriñ Ousmane xam na ci dara. sëriñ Ousmane Jami xam na ci dara. ñu commencé di ko def téeméeri junni ixlaas. nee ñu commencé di ko def téeméeri junni ixlaas. jamono ñëw. nee jamono ñëw. waaye euh, ñu nekkoon ci daayira xanafiya bi daanaka jëm mag. nee ñu nekkoon ci daayira xanafiya bi yëpp jëm mag. ñii wàññeeku. nee ñii di wàññeeku. ñii ñii feebar. ñii feebar. ba xaw a sooxe. nee ba affaire yi xaw a sooxe. ci bi Mouhamed Mbodj gaañoo. nee ci mu Mouhamed Mbodj ba mu gaañoo. mu am ku gént mbóoj. nee mu am ku gént mbóoj. bis ci bis bañ koy yóbbu seen dëkk. nee ci bis bañ koy yóbbu seen dëkk. mu gént mbóoj ne ko daal. nee mu gént mbóoj ne ko. man daal maa ngi ci fu lëndëm kurus. man daal maa ngi ci fu lëndëm kurus. man dara nag. waaye te waxaguma dara de. kenn waxaguma dara de. kenn waxaguma dara. waaye am naa yaakaar. waaye am naa yaakaar nag. kooku ba nee kooku ba mu ko nettalee sëñ Mansour. teg ci semaine. ñu teg ci une semaine. benn góor ñëw Liberté 6. benn góor ñëw Liberté laata loolu. ne laata loolu. bi nee na ma. sëriñ bi nee na ko. dafa gént Mbodj ñëw Liberté 6. dafa gént Mbodj ci boppam ñëw Liberté 6. ñëw ci néegam boobu. ñëw ci néegam boobu. toog ci chaise bi toog ci chaise am ba. sol costume cravate sol costume cravate. toog jàkkaarloog man toog jàkkaarloog man. nee na waxuma ko dara waxuma ko dara. waxuma ko dara moom waxuma dara. mu xool ma ba mu yàgg. nee mu xool ko ba ci yàgg. nee mu jug ubbi buntu bi dem. ca bés boobu nee ci bés booba. ca ngoon la góor ga ñëw. ca ngoon la góor ga ñëw. daal dama gént mbooj. ne ko man daal dama gént mbooj. mbooj ne ko daal. mbooj ne ko daal. man daal nee nañ ma. man daal nee nañ ma. léegi libéré nañ ma. léegi libéré nañ ma. fu ma neex dem. waaye lam teg moo yéeme. waaye nag lam ca teg moo yéeme. dafa ni dafa ni góor gi. dafa ni góor gi. ma xamal la ni dog yee ma ci génnee ma xamal la ni dog yee ma ci génnee de. Neh ko sama papa Mansour waxee loolu. sama xel ne yar. sama xel ni yar. ca dog yi ñu def. ca dog yan daan def. bi. ma ne bi. est jox nga ma ndigal. est-ce que jox yi 31 bi 31 bi ma saxal ko rek. rek ñu saxal ko. ñu def ko at. ne ñu def ko at. at ba ca at ba ca mu dem Maroc. ne mu dem Maroc. ndax 100000 ixlaas lañ daan def. nee 100000 ixlaas lañ daan def. te yokk na ci inna ataynaakal kawsar. nee ñu yokk tey yokk nañ ci inna ataynaakal kawsar. mu dem Faas. nee mu dem Faas. nee na am lu ko fa yàlla wan. nee mu am lu ko fa yàlla wan. mu nekk ci xadara boo xam ne. mu nekk ci xadara boo xam ne. inna ataynaakal kawsar lañ joxe woon dog. inna ataynaakal kawsara la ñu joxe woon dog. dog joxe ci lim yu kawe. nee ñu joxe ci lim yu kawe. nee na moom. nee na moom. lim yi ñu ko jox. lim yi ñu ko jox. moom mi ngi koy wér. moom mi ngi koy wér. di ko wér. bi mu yeewoo. bi mu yeewoo. làmmiñam mënul taxaw. làmmiñam mënul taxaw. dafa continuer di ko wax. nee dafa continuer rek di di wax dog yi. toog na ay ay minutes. nee na toog na ay minit mënul téye làmmiñam. mënul téye làmmiñam. muy jàng inna a'taynaaka al-kawsar. muy jàng inna a'taynaaka al-kawsar rek. mu yeewu woo ma. nee mu yeewu mu woo ko. mu nettali ma lépp. mu nettali ko lépp. ne ma sama sago. ne ko bu doon sama sago. ndax ndax ndax eh, dog boobu. ne ndax dog woowu. dafa am ay surut yu ci nekk. dafa am ay surut ay charte yu ci nekk. mu ne yooyu su mënee mat. mu ne yooyu bu mënee mat. su ngeen mënee dajale ay nit. su ngeen mënee dajale ay nit. fexe ba def ko. ngeen fexe ba def ko. ma jël ko benn dimanche fii. ne mu jël ko benn dimanche fii. ñenn ñu ma tànn ci Ndakaaru. mu am ñenn ñu mu tànn ci Ndakaaru. ñëw ni leen nañ ko def. ñëw leen nañ leen def dog bi. te leen dara. ne te waxu leen dara. kii 31 décembre bi ci topp. nee 31 décembre bi ci sa papa. mu Mansour. inna a'taynaa man daal doge dama bëggoon ñu yokk ci inna kal kawsar. mu ne ko loolu dana a ne. Ah, ko ah nañ ko essayer rek. ko nee bañ ko defee ci bis dafa nekk ci néeg bële. dafa ci dafa nee dafa nekk di wax di wax ba minuit jot. dafa nee dafa mel ni ku newoon ci waaye yàlla dimbali nañu nag. ne yàlla dimbali nañu nag. benn ci surut yi. benn ci surut yi. moom ñu ngi koy sàmm. moom ñu ngi koy sàmm. mooy sélectionné ñi koy def. mooy sélectionné ñi koy def. man bu ñu toogee di wér. ne bu ñu toogee di wér. dafay xool kanam yi. ne dafay xool kanam yi. mu wóor ma ni tey moom. ne mu wóor que ni tey moom. ñii ma fi gis ñëpp. kanam yëpp. kanam yëpp. moom moom. génnuñu suruti. macha allah ñoom kenn génnu ci sart yi. muy muy benn sant muy loolu muy benn sant yàlla. ñaareel bi. nee ñaareel bi. lam ma waxoon ca biir xadara. nee lam ko waxoon ca biir xadara ba. foofu ñëwee ci góor gi. nee foofu lay ñëwee ci góor gi jóge ba Ross Béthio. teewaayam fii mu yéem ma lool. moo tax teewaayam fii tey mu yéem ko lool. daf ma ne bi nekkee ci biir xadara. nee def ko ni Serigne Mansour da ko wax ne ba ñu nekkee ci biir xadara bi. man li ma jaaxal. man jaaxal. benn benn góoru tukulóor. nee dafa am benn góoru tukulóor. laa gis mu dugg si. laa gis mu dugg si. am ñu ma àndal am ñu ma àndal. man nag daanaka am na ah, sax ñu ma xàmmee ne xam naa ñii ay sénégalais lan. am na sax ñu ma xàmmee xam ne ñi ay sénégalais lan. mais mu ne ma ba góor ga ñëwee. waaye nag ba góor ga ñëwee. ba toog ba toog. la commencé def dogu. la ñu commencé def dogu. inna aataynaaka alkawsara yi. ñu góor gi ne day ñëw. nee ñu xëy tey góor gi ne day ñëw ci dog yi. ñu dem di ko jëli. ñu dem di ko jëli. mu am gan. mu am gan. mu ne nañu bàyyi ba ci kanam. mu ne nañu bàyyi ba ci kanam. gis nga bi muy ñëw. ne ba muy yegg si ci jotaay bi. fekk nañu pare ixlaas. fekk nañu pare ixlaas yi. ñu ngi waaj julli juma. ñu waaj a julli juma. إنا أعطيناك الكوثر إلى فك إنا أعطيناك الكوثر إلى فك نك تي لوكو بايام شيخ محمد المنصور وخون مو نيكات بنن سكر تي بير موتاخ با ني واخه داني جانغ خاتمو بي موني ديدت بون كو جانغ غوم دي ناني باي ما واخ با بار ناني باي مو واخ كادو يبا نوبي ndax tay ji amna lu yalla dajale fi xamni dañ ko amate wala de ne yàlla rek moo xam. mu nekk jotaay boo xam mu nekk jotaay boo xam ni. nañ ci fexee diig suñu ay soxla. nee nañ ci fexee diigal suñu ay soxla. ñu ñu ñu sëñ bi waxoon rek. nee ñu jiital ci la sëñ bi waxoon rek. ñaan yàlla mu téyal ñu boppam. ñu ñaan yàlla mu téyal ñu boppam. te bañ ñu bàyyi suñu bopp. te bañ ñoo bàyyi ak suñu bopp amin yàlla sàmmal ñu suñu pas-pas. yàlla sàmmal ñu suñu pas-pas. yàlla musal ñu ci yi wër di ruur. yàlla musal ñu ci yi wër ruur. di di ruur xel yi. ku rëcc rek yàlla. ne jamono ji nag képp ku rëcc rek yàlla. coow li bari na coow li bari na. wax yi bari na woote yi bari na. maam yi bari na waaye nag bala yàlla téyelee boppam. ne nga tegu rek ci siraatal mustaqim dara du la këf. ndax yenn saa yi nga gis kilifa wax. ne yenn saa yi nga gis kilifa wax. nga xam ni kii. borom xam-xam la. am na mbooloo. am na mbooloo. waaye wax ji mu wax. waaye xa ngay xam ne du waxam de da ngay xam ne am na lu fa jaar nga xam ni la ko ruur nga xam ni la ko ruur yow mën na la ruur moo tax na ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala ne jotaay bii nga xam ne jàng nañ fi téeméeri junni qul huwa allahu ahad ne nga xam ne ñetti qul huwa allahu ahad yu nekk sidna ali nee na mat na kaamilu alquran ñu teg teg ci nee ñu teg ci inna a'taynaaka al-kawsar. nga la mu làmboo xaw ma nee nga xam ne la mu làmboo yëpp moom saar woowu xamuñu ko. yàlla rek ko xam yàlla rek ko xam. li ñu ko jox ñu koy def itamit. nee li ñu ko jox it ñu koy def it. fa mu jaar ba ñëw. fa mu jaar ba ñëw. ñun xamuñu ci dara. dañ ñu ko wax rek dañ ñu ko wax rek. 7000 eh, faatihatul kitaab yi tamit. nee 7000 faatihatul kitaab yi tamit. Eh, kooku sirru Sëriñ Abbas. nee kooku sirru Sëriñ Abbas la. ñu bari xam nañ ko. ñu bari xam nañ ko. nee da daan toog. ci ay diir. ci ay diir. am ñu mu daan woo. am ñu mu daan woo. ñu mu wóolu. ñu mu wóolu. ñëw daaw ñu bari nag. nee daaw ñu bari nag. daa nekk yenn saa yi juróom daan na nekk yenn saa yi juróom-ñaar. yenn ñu nekk fukk. yenn saa yi ñu nekk fukk. mu ñëw ñu toog. mu ñëw ñu toog. mu def loo leen ko. mu def loo leen ko. ba mu teral leen. ba pare nag mu teral leen. la ci ëpp sëriñ bi nee na. la ci ëpp sëriñ bi nee. boo ko sëñ daan def. fekk dara feeñ. ne fekk faw dara feeñ. moo tax yooyu la ñu boole tey. moo tax yooyu yëpp la ñu boole tey. loolu moo moo réel yaakaar. loolu moo réel yaakaar yi. ñuy ñaan yàlla rek. nee ñuy ñaan yàlla rek. ci barke jotaay bi. ci barke jotaay bi. sunu kilifa yi. sunu kilifa yi. yal na yàlla dëgërël leen. yal na yàlla guddal seen fan. mission bi nga xam ni. nee mission bi nga xam ni. moo doon mission wu moo nekkoon mission wu Cheikhna Abbas Sall Tijani. mu jóge fi ne mu jóge fi baye fi khalifam Cheikh mohammed al Mansour. defaral ko boppam. defaral ko boppam. waajal dem famu toll ko def ci la wara def. ne famu toll mu def ci la mu def. maa wa taala. nee mi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala. yal yàlla yombal rakami yi. yàlla yombalal rakkam liggéey bi ba ñu yóbbu ko foo xam ni. ba ñu yóbbu ko foo xam ni. ñun suñu njort sax yeggu ñun suñu njort sax yeggu fa amin. loolu daal la ñuy ñaan ci barke jotaay bi. di di di ñaan yàlla sunu sunu borom. di ñaan yàlla sunu borom. barke jotaay bi. ci barke jotaay bi. yal na yàlla saafara jàngoro yi. yal na yàlla saafara jàngoro yi. dàq tiis yi. yal na yàlla dàq faj aajo yi. yal na yaatal wërsëg yi. yal na sutura bi. defal ñu defal ñu gudd fan. te mu ànd ak wér. te te lépp nag. nee te ñu ànd pas-pas bu dëgër. nee mu ànd ak ak pas-pas bu dëgër. yal na yàlla ci boppam jaamu ko te ko bokkaale. yal na ci ñu ko rek te buñ ko bokkaale kenn yal na yàlla sawaral sunu cër yi ci ñu jaamu ko wax leen amin yal nañ ko yàlla defal ne sëriñ bi ne dafa jàpp ne jotaay bi lépp lu fi waay diigal ci soxla ne wallahi am na ci yaakaar ne moo tax nag ne bëggul woon ñu tëb tëb rek jàng xatmu bi ne ndax jàng na ñetti kaamilo alquran loolu lañ jiital. ne loolu la ñu jiital. ñu téye xatmu bi. ne ñu téye xatmu bi. fexe kilifa yi. fexe kilifa yi. ñu ñu mën ko jàng. bu ñu ñëwee mën koo jàng. waaw daal maa ngi gërëm ñëpp. ne sëriñ bi ne mi ngi gërëm ñëpp. di sant ñëpp. di sant ñëpp. Ah, sama xel dafa dem ci la sëñ Abbas waxoon. ne xelam dafa dem ci la sëñ Abbas waxoon. dafa mës a woote ziyaare ngi. ne dafa mës a woote ziyaare ngi. muy gërëm mbooloo mi. muy gërëm mbooloo mi. waaw man. maa leen war a gërëm wala a ma a gërëm. man man sëñ Abbas maa leen war a gërëm wala yéen ñi ma wuyu si. ma yéen a ma war a kan moo war a gërëm morom. mun leen kan moo war a gërëm sa morom. ki ki ñëw woo leen ci yàlla. ne ki ñëw woo leen ci yàlla. ak kii ñëw wéttale la yow ci yàlla. ak kii ñëw wéttale la ci yàlla. kan moo war sant waaye kan moo war a sant moroomam. ndax wax dëgg yàlla liñ fi def. ne wax dëgg yàlla liñ fi def. bu doon ñun ne bu doon ñun rek. ne du am de. bu fekkoon ñun rek la. nee bu fekkoon ñun rek la. waxuma nee waxuma la 100000 sax. waaye 12000 sax danañu të. moo tax xanaa li ñuy def rek. moo tax kon li ñuy def rek. mooy ñu boole ñëpp àndandoo. mooy ñu booloo ñu ñëpp ñu àndandoo. ñu sant yàlla. li ñu yàlla may. ñu yàlla may. ñu fekkee ko. ñu fekkee ko. ñu fekkee ko gannaaw bañ ko fekkee. gannaaw ñu tal ko. ñu tal ko. ndax eh, eh, diggante. Eh, 31 décembre bi ñu fi mujjee def ak bii. ne diggante 31 décembre bi ñu fi mujjee daje ak bii tey jii. waaw lu bari xew na fi. ne lu bari xew na ci diggante bi. ne am na ñu fekkee woon jotaay bi fekkee wuñu ko. am ñoo xam ne fekkee woon nañ ko. am na ñoo xam ne fekkee woon nañ ko. waaye amuñu jotu ñëw. waaye amuñu jotu ñëw. kon buñu yàlla dajalee kon ñun buñu yàlla dajalee fii. mu may ñu wér. yàlla may ñu wér. fekkee ak tal yàlla may ñu fekkee ak tal. ba ñu yendu ba ñu ñëw yendu fi. def lu toll nii. nee kon ñun ñëpp nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla rek nee ñu ñaan yàlla rek yal na yàlla yàggal ñu ci lii yal na yàlla yàggal ñu ci lii yal na yàlla eh, dimbali yal na dimbali fii ñuy teg sunu tànk. ne fii ñuy teg suñu tànk. nga xam ni man haju sëñ Abbas. nga xam ni mooy yoonu sëñ Abbas. nga xam ni sëñ Mansour dafa ñëw leeral ko. nga xam ni sëriñ Mansour dafa ñëw leeral ko. nga xam li fi des mooy teg sa tànk rek dem. kon li fi des mooy teg sa tànk rek dem. yal na yàlla téyel téyel boppam ci yoon boobu. yal na yàlla téyel ñu yoon woowu ba ñu teg suñu tànk. nga xam ni ëllëg bu ñu dajee ak ñoom. nga xam ni ëllëg bu ñu dajee ñoom. du ñu sëgg de. du ñu sëgg de. benn góor dafa ne. benn góor dafa wax ni

mag ñi mag ñi màgget ba tële. mag ñi màgget ba tële. kenn du leen woo kenn du leen woo. waaye sunu mas gi faw ñu woo. waaye nag suñu maas gi faaw ñu leen de. waaye yéen lii xew lu ngeen ci def. waaye lii xew lu ngeen ci def. lee ba muy xew. lee ba muy xew. lan ngeen ci def mu bañ am. lan ngeen ci def ba mu bañ am. li fi sëñ Abbas bàyyi woon. li sëñ Abbas bàyyi woon. lu ngeen ci yokk. lu ngeen ci yokk. ngeen ci defar. lan ci defar. lee ba muy yàqu. lee ba muy yàqu fu ngeen nekkoon. ndax moom lañ tollool. ndax moom la ñu tollool. góor ga ne nag. lee góor ga ne wax ni. da ngay sa responsabilité. yow nit ki da ngay assumer sa responsabilité. wala nga bañ ko assumer. wala nga bañ ko assumer. léegi nag histoire mooy juge. léegi nag histoire mooy juge. histoire yi ñëw. ne histoire mooy ñëw. ne jamono sangam de. ne jamono sangam de. dara xewoon na. dara xewoon na. waaw ñan ñoo ko fekkee woon. ñan ñoo ko fekkee woon. ñun la diw ak diw. ñun la diw ak diw. Eh, eh, eh, ñoom lan lañ ca defoon. ñoom lan lañ ca defoon. ñu ne mu ngi nii. budul woon ñoom de. budul woon ñoom de. du mel du mel nii bu du woon ñoom de du agsi fii yàlla na yàlla dimbali nag ba bis bu ñuy àtte ci ëllëg ëttum sëñ Abbas ca kanamu yàlla subhaanahu wa taala yàlla na ñu yàlla boole ca ñuy am mbégte yàlla na ñu yàlla boole ca ñuy am mbégte yàlla na ñu yàlla boole ca ña nga xam ne sëñ Abbas bu ñu ñëwee teew bu ñu ñëwee teew dañuy bokk ci ñi am ñi nekk fierté ci moom day bokk dañuy bokk ñi nekk fierté ci sëñ Abbas yàlla nañ ko yàlla defal li muy mujjee rek. ne li muy mujjee rek. Euh, sëriñ bi mu nekkee hôpital. nee sëriñ bi mujj dundam ba mu nekkee hôpital. li mujj ci yu mujje wax. ne ci yu mujjee wax. loolu daf leen koy wax pour bégal leen ko. nee loolu daf leen koy wax rek ngir bégal leen. ca ya yàlla doon wan. nee ca la ko yàlla doon wan. dafa toog ne ma. nee dafa toog ni ko mu ne ma may gaaral. mu ne ko ñi ngi may gaaral. kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ci kanamu Seydina Cheikh. ci kanamu Mawlana Abil Abbas Cheikh Seydi Ahmed Tidiane. ci kanamu góor yàlla yëpp. ci kanamu góor yàlla yëpp. ñi ngi may gaaral. ñi ngi may gaaral. teraanga yàlla defal Sëñ Abbas. teraanga yi def defal Sëñ Abbas. ñi ngi may gaaral lépp. ñi ngi may gaaral lépp. loolu nag ne loolu nag. xam nga kuñ ko defal. xam nga ni kuñ ko defal. ngay waaj dem. ngay waaj pour dem. sa xel sa xel dina dal. ne sa xel dina dal. sa xel dina dal. ñu sant yàlla rek. góor dañ ko sant waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf ne ko jërëjëf rek dañuy daan dañuy daan rek ne nañu daan rek dafa guddi ba noppi jërëjëf la ilaha illa allah محمد رسول الله عليه السلام الله jërëjëf ne dafa wax loolu rek pour nu ñi xam pour nit ñi xam yàlla booleel mooy kan ki ñu yàlla booleel mooy kan ndax soo ko xamul ndax boo ko xamul mën nga xeeb sa bopp ne mën ngaa xeeb sa bopp mën nga dem ci ay bërëb mën nga dem ci ay barab nga wacce sa bop waye nak nga xam fi nga bok xam yalla defal xam ki la yalla bolel kan la kan ne lol dafa bax ndax suñu jamono ji ne farata la pour ñu xam ko boko xamul rek man nañ la fekk wala nga dem walli fo fofu du sa place ne ñak xam sa bop moy waral lol motax ñi ngi ñaan yalla yii ñu fi jàng tey ñu fi jàng tey yëpp. gannaaw bañ ko defee hadiya gannaaw bañ ko defee hadiya ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Eh, def ko hadiya sidna Cheikh Ahmed Tidiane def ko hadiya ci Mawlana Abil Abbas Cheikh Seydi Ahmed Tidiane. ñu ngi koy ñu ngi koy def hadiya Seydi Abbas radiyallahu taala. nee ñu ngi koy wàccee nag di ko def hadiya ci Cheikhna Abbas Sall At-Tidiane. yal a ko yàlla fayal yal nañ ko yàlla fayal. yal nañ ko yàlla fayal. yal nañ ko yàlla fayal. yal nañ ko yàlla fayal.

dama naan sant war nañu. wax ni ñun sant yalla war nañu. Mansour dafa moom Abbas ne bu fekkee Mansour Abbas li ñu du de. ne yaakaar ni du demee ni de. waye xam nga lu mo do rolam waye xam nga lu nekkon rolam Abbas dafa dem. Abbas dafa dem. bayiko fi bayiko fi. que mu gunge nit ñi. pour ko mu gunge nit ni ba ñu ñemewul woon ñeme. ba ñu ñemewul woon far ñeme. ñi xamul woon xam. ñi xamul woon xam. ñi màggul woon gimmi. ñi màggul woon gimmi. mu ne nag léegi nag. ne li mu ne léegi nag li la nëmoon yëpp leer. mu ne nag léegi nag. mu ne léegi nag. yow nag sa jaan wàcc na. yow nag sa jaan wàcc na. waaw yàlla demal nga noppalu ji. demal nga noppalu ji. la ca des. ne la ca des. rakkam yi. rakkam yi. danañ mottali lépp. moo tax nañu sant yàlla bu baax a baax a baax nee nag sëñ bi ne mi ngi jéggalu ci kàddu yi de. jotaay bi dafa yóbbu suñu xel ci ne jotaay bi tey dafa yóbbu suñu xel foo sori. ne daf ñu daan préparé ci bis yu mel nii. waxam yëpp. ne benn bis sëñ bi daf ko wax ni. mu ne ko sëñ Moustapha xam nga Sénégal luy seen feebar. mu ne ko seen xol yi moo xomaat. ne pas-pas yi moo yàqu. mu ko léegi lan moo ciy pexe sëriñ bi. mu ne waxtaanu ko diine yëpp. mu ne léegi waxtaanu ko diine fukki at xam ne. du ñu wax lenn lu dul tawxiid. bu ñu demee ba pas-pas yi defaruwaat. bu ñu demee nag ba pas-pas yi defaruwaat. ñu jël yàlla jox ko palaasam. ñu jël yàlla jox ko palaasam. yonent bi salaasam jox ko palaasam. jël Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko palaasam. jox ko jël sëriñ bi jox ko palaasam. jël sëriñ bi teg ko ci palaasam. su boobaa ñu indiwaat yeneen waxtaan. su boobaa ñu indi yeneen waxtaan kat. waaye nee na leneen lu ñu indi lu dul lii. waaye nee leneen lu ñu indi lu dul lii. lu ñu liggéey yàlla du ko gis. lu ñu liggéey yàlla du ko gis. loolu nag yàlla nañ ci yàlla suturaal. yàlla nañ ci yàlla dimbali daal. nee yaxsatul kubra. yeewu bu mag boobu. yeewu bu mag boobu. nee na ku dugg biir suuf. nee na képp ku dugg biir suuf. yàlla dindi sa kiiraay yëpp. yàlla dina dindi sa kiiraay yëpp. nga xam lépp. nga xam lépp. nekk borom xam ci fànn yëpp. nee nga nekk borom xam-xam ci fànn yëpp. su boobaa yaay njëkk a jugé sa bopp avant ñuy. su boobaa yow yaay njëkk a jugé sa bopp laataa ñu laa jugé. yeewu boobu nag. nee yaxsatul kubra boobu nag. yal nañu yàlla dimbali. yal nañu yàlla dimbali. ba bu ñu bu ñu bu ñu yeewoo yeewu boobu. ba ñu yeewoo yeewu bu mag boobu. yal nañu bokk ñëpp wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax jamono bu tiis la. ndax jamono bu tiis la. ndax bu la ya nga tënku woon. nee tiis ya nga tënku won moy fogon na nga tënku woon. penc ma. sama waja ma sama waay ja te te fokk te ñu la wax. ne te yoy yep ñu la wax. mu wuté mu wuté ak la yàlla santane ak la yàlla santane foofu nekk ay doomu aadama dana tiis foofu nekk ay doomu aadama dana tiis lool. moo tax nag ñaan yàlla rek. na ñu ñaan yàlla rek. yal na yàlla téyel boppam. bañ ñu bàyyi ak suñu bopp. bañ ñu bàyyi ak suñu bopp. ne ñu ngi dellu di gërëm ñëpp. ne ñu ngi dellu di gërëm ñëpp. sëriñ bi ne mi ngi jégalu ci kàddu gi. ne kilifa yi bu ñu toogee. ne wax warul bari. yee kilifa yi ñoo moom wax ji. waaye nag am na loo xam ni. ne am na fu mu tolloon foo xam ni. faw lii génn ci man pour mu mën a am jàmm ñi ngi gërëm ñëpp nag ñi ngi ñaan yàlla jotaay bi yàlla ba mu nekk suñu mujjub jotaay wax leen amin yàlla ba mu nekk suñu mujj jotaay bu ñu fi dajawaat daal maa ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala yal nañ fi dajawaat ku nekk ne ñaanu daaw ya de ca la sama mbir defaroo nañ fi yal nañ ko yàlla defal yal ko yàlla defal léegi ñi jox kàddu yi nag waaw sëriñ bi sëriñ Issa mu sànni ci ak kàddu après jox sëriñ sëriñ Mouhamad mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi jël nuyoo bi nuyoo bi nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci xadaratu Cheikhna Abbas di ko teg ci loxol Cheikh Chérif Mouhamad al Habib mu jottalil ñu ko xadara Seydina Abbas di leen ndokkale yéen ñi fi teewoon ñépp di wax ni hani an lakum di leen ndokkale ci li nga xam ni moom la yàlla baaxe may nu nu fekke ko man de xamuma nan la ñu woon atum deux mille vingt et nu nu ko tàmbale woon de xawma ko waaye nii nu ko mottalee de moom nii nu ko mottalee yaakaaruma ni nit mën naa mottalee année bi lu gën a rafet walla sax lu mel na lii ngeen mottalee année bi téeméeri junni ci ixlaas nga xam ni benn ixlaas boo jàng la ci nekk ci aw yiw mëne su ko wax nga def ci téeméeri junni yàlla nanu yàlla fayal cheikh na abbas yàlla nanu yàlla fayal cheikh na mouhamadul mansour suñu soppe ba li wóor te wóor tey de mbokk yi mooy lii nu fi def nii sëriñ mouhamadul mansour mi ngi ànd ak ñun léegi bi sëriñ mouhamadul moustapha di wax maa ngi gëmm samay bët di xalaat nim tooge woon fii ci biñ ko mujjee def nu toog pare mu jox ma kàddu ni ma fokk nga wax loola ñu doon wax ba léegi mi ngi fi li may wax toujours rek mbokk yi mooy moom def na li ko war sëriñ Moustapha waxoon na ko benn bis ci benn baat mooy la mu daan la wax rek moom waat na ba wàcc def na liggéeyam rafetal na liggéeyam mott mottali na liggéeyam rafetal na gannaaw Cheikh na Abbas def na li mu waroon a def lépp soo gisee ndaje mi ni mu amee tey ak pas-pas yii mu ame nga xam ni Serigne Mansour fanweeri at yi mu fi nekk ak benn gannaaw Serigne Abbas nekkul woon di nelaw bu nelawoon du du mel nii tey de tey ku ñu waxul ni sëriñ Mansour nekku fi doo ko gëm mbooloo mi ni mu toll ren ñu ngi leen di sant mbokk yi ci kóllëre gi ngeen am kenn ku ci nekk jóge sa kër 9 heures 10 ci suba ba heure bii ngeen nekk te mottali kóllëre moo tax yàlla na yàlla faj seeni aajo yi ngeen am yépp ci àdduna ak ci alaxira yàlla na yàlla mi nga xam ni mooy maye may nu nu dajawaat ko fi déwén te kenn ci yéen bañ a manqué kenn ci nun bañ a manqué imaam Ousmane Dia ñu lay sant sa nekk fi am na njariñ taxawe nga fi taxawaay boo xam ni bii bu rafet la mbokk yi bu nu mënoon a jaar kenn ku nekk ci yéen ci seen tur dañu ci jaar kenn par kenn waaye yàlla mi nga xam ni moo leen xam yàlla mi xam seen zahir xam seen batin xam li ngeen di xalaat ak li ngeen xalaatagul yàlla na yàlla moomu taxawu leen yàlla li su seen dund gi yàlla bu ngeen gisatilu leen jaaxal yàlla na leen yàlla wattul seen pas-pas wattul nu sunu pas-pas leneen li may wax fi ma koy jëmale mooy njabootu sëriñ Mouhamadul Mansour ah lii de mooy wane ni mooy wane ni am ngeen sas sëriñ Cheikh Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Serigne Saliou ak jigéen ñi lii mooy wane ni am ngeen sas te sas wi dey seen bàyyi ko topp woon waaye bisub tey bii wone na ni bàyyi na fi nit ñoo xam ni fas nañu yéene sas woowa du booy bu soobee yàlla kan ca bopp loola di Serigne Mouhamadou Moustapha ànd leen ak moom jàppale leen ko déggal leen ko bu fekkoonte ni Serigne Moustapha mii am na nu kóllëre rek Serigne Mansour de kenn waxul loolu waaye am na noo xam ne bu ko meloon kon mbir yi nii mu demee du ko demee tàmbali bii moo nay wan ni Serigne Mansour làqu na waaye liggéey bi mu fi liggéeyoon mi ngi fi te yàlla mën na noo defal tawfiq ci njiitu kilifa yii fi nekk la nga xam ni moom la fi Serigne Abbas bàyyi woon te Serigne Mansour ñëwoon doon ko mottali loola dem ba gën a rafet nu ñu ko yaakaariwul woon yàlla na yàlla def loolu ñu ngi nuyu di siyaare sunu yaay ji ci biir soxna aja Aminta di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak wu ànd ak wér gu yaram yàlla na yàlla barkeel ko bàyyee ko ak xelam di nuyu njaboot gi yépp di leen nuy yéen ñépp mbokk yi toogaay bi yàgg na li ñu waroon a wax lépp daanaka wax nañ ko waaye day ku jóge fii tey war nga am yaakaar ci ni incha li nga xam ne Serigne Mansour bàyyi woon na ko fi dana wéy ma di leen ñaan na ma ko daan ñaane mbokk yi ñoo ngi leen di ñaan nitu yàlla boo ko ñaanalee dañu naan la wala ka mithlu dalik kenn ku ci yéen kenn ku nekk ci yéen su delloo بلا جل سب نيد فاتحة فك قل هو الله أحد أكبن أك صلاة الفاتحة نيان الشيخنا عباس نيان نيان الشيخنا محمد المنصور يلا دولي لن أيلر مكي كل دفل ملني أملو فيم ليرك موشدس دي دين فات لكوش أي نيان نيان غو نيان يلا جوت للين كو موي درجات يوخاني كن خمو نمو تولو ñu ne waaw lii lan la ñu ne ko yow kat da koo xam ni ki sa taalibe la woon wala sa nangam la woon mu tudd eh, eh, eh, Ahmad Fall Dieye moo la yónnee lii mu ni lii lépp ndax yàlla xaraf boo jàng la mu cay fay kenn xamu nu mu toll te loolee nag mbokk yi dafa yomb lool fatiha benn qul huwa ahad fukk ak benn benn salaatul fatihi nga def loo xam ni lii tey buñ ko doon jënd gànjar jënd ko yal na yàlla yal na yàlla wattu leen sëriñ Moustapha yal na la yàlla dëgëral am nañ ci yow yaakaar sunu yaakaar yi yàlla bu tas bi jaay saydi wu jóot sallallahu alayhi wa sallama nii rek la nii rek nii rek nga ko defee rek noonu rek la bu dul woon nii itam nag day demee neneen rek yal na yàlla dëgëral la yal na yàlla wattu la bi jaay saydi wu jóot mbokk yi yal na leen yàlla fay seen taxawaay yi ñu ngi leen duñu yéen ñëpp di leen ziyaara wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين بك جيلي نيغ لين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي جيتال تي نيو بي سونو ماك دي سونو خريط دي سونو ليب مي الشيخ شريف محمد الحبيب عباس di nuyu tamit kilifa yi fi nekk yëpp danañ ci tudd sëriñ Issa Seck bu eh, ma nee sama sëriñ la sax mu ne bu ma ko waxati waaye nag mooma jàngal laay waxoon a <laughs> ah, di nuyu tamit mboolem ko fi teew wax dëgg yàlla buñ doon tudd duñ xam fu ñuy commencé duñ xam fu ñu yam di jéggula tamit yéex a ñëw bi ndax jàpp nañ ñoo fi waroon a jëkk ndax lépp lu ñu tudd Serigne Mouhamadou Mansour yaakaar naa ni eh, li ñëpp xel xel yëpp dana jëm ci man eh, tey jii tamit suñu ñàkk ñëw ñaar la benn bi bisub lëggéey la waaye loolu teewu ñoo ñëw ndax bari na ñoo xam ne bàyyi na seen lëggéey ñëw na waaye nag jumaa ja ñun ñoo ko doon jiite te mënuñoo ñëw ci julliwul ba pare jéem nañoo wut ay ngant sax waaye ngant la sottiwul ba ma demee ba ma xam ni tey jii gannaaw julli jumaa laa war a ñëw démb laa siyaare sëriñ Sidi Abbas siyaare sëriñ Mansour sëriñ Moustapha pour nag tey jii bu ma am bu ma am bu ma am xat-xat pour mën pour pour mën a ñëw fii loolu loolu lan defoon moo tax tey jii jaaruma fa ndax dama oto bi fa ma fa may jullee la taxaw pour war a jubal si fii direct li nu jàppoon tamit mooy gannaaw tàkkusaan lan fi agsi waaye autoroute à péage bi loo yaakaar yaakaar ni gaaw na bu dee ba wàcc jot rek nga fàtte lu la taxoon a jóg. ba tax na bi ñuy ñëw sax dama naan du ñu agsi waaye dama ne nan agsi bu ñu fekkul kenn nit xam ne agsi nan suñu yéene agsi nan kon loolu moo waral suñu xaw a yéex a ñëw nii waaye ci suñu ni ñu calculé woon six heures dañu fekk kon loolu mooy mooy ngant loo xam ne si eh, suñu ko amul woon ànd nag li sëñ Moustapha sax dafa doo wax ni bu ñëw waaye nag mbirum sëriñ Mouhamadou man aw ma ci aw sama sago sa man wax ay yoon ni ko man loola neex tudde ko waaye man doo sama mag doo sama xarit du ma sa conseil lu tax doo sama xarit doo tax doo sama xarit xarit bi bari na xarit yoo xam ne naan xarit daaw baa woon xarit ba woo xaritu woon ngay dégg bari na xarit firiwul luy sax bu ma nee sama maga wala dañ naan kat nit ñi mën nañoo bari na lu ñu dugg ti diggante nit ak mbagam ba loola yàqu du ma sooy conseillé tamit mooy du ma du xalaat ngay wax defal may du ma xalaatal may def rek man li ma ko wax rek heure bu nekk man moo defar sama adduna defar sama alaxira defaluma ko loo xam ne si mën naa koo tudd nit di wax te man lim ma defal bu ma ne woon dind naa ko ci yow amul lu may ti ci àdduna bi tariqa ti jaan bii may dunde moom ko dox kon ni may naa la werd yi Serigne Mouhamadou Mansour laa ko de fu ma feebare mooy te faj yenn yi saali ngi nii fekk fekk na ko bu ji rek ci ba dafa ko ànd rek moom am fifteen bu mu ko bu ma demee ba sama feebar bi sax saali moo ni ma nan dem lépp papaam sax yóbbu fu ma ñàkki mooy taxaw toog nan di jàng ci école bi toog ay weer ñu fayuñu torog bi mu joxee xaalis Moustapha ni ko nama ko jox dama Moustapha jox ma ko dama dama tiit daan xëy suba ni ko sëñ bi mu Moustapha la ma jox xëy na nga xamul lool lu mu doon moo tax daal euh, ma bëggoon rek nga xoolaat ko pour ñu wàññi ko mais dafa dama rus moo tax ma jox ko sëñ Moustapha eh, kon maanaam sama diggante sëñ Mansour moo koy wax eh, dama danaan ba da ngaa war a nekk géwalam di ko way ndax nit tagg na nit di tagg na nit ba ñëpp di ko wax na lam ko defal te wallahi li ma ma sëriñ Mahamadou Mansour defal defalu ko ci waxuma ci wàllu yàlla de wàllu adduna rek laay wax wàllu yàlla nag bu ni woon tey la ma la mayoon jël naa ko man lan laay des man li ma ne woon bee naa ko te man lan laa ko defal liggéeyul ma ko joxuma ko xaalis lu ma ko defuma ko dara même yóbbante bi ma daan wax dëkk sàngam dem fa sax dafay jëm ma jël yónnee xaalis boo xam ne si wóor la ma ne xaalis ba duma xam lu ma koy def ba bi ma ko mujjee wax ma ne ko sëñ bi bàyyil foo ma yaba foo ma yabaleeti ma ma ma naa dem boo joxee joxati paas dafa ne ma waaw waaye saa yi damay jékki-jékki rek gis wari lu may xam ni moom la foo wari daan jóge foofu la jóge man de nii laa nii dëkk nag moom léegi nag ku dëkkee ku dëkkee nit nii dooy <laughs> def maanaam loo ko defal rek dañuy xam ni kooku lu lu tuuti la ci nga war a li nga war a def rax ci loolu nag mu li li xam ne si moom ma seedeel sama tur fu ne àgg na fa wallahi azim fu nekk nit ñi jë bu ne ñi nga may wax man na sa diggante sa ak sa Mouhamadou sëñ Mouhamadou Mansour loolu nag wax dëgg yàlla man leen dong laa man sama dund gi daal li fi des lépp loo xam ne si yéene naa ko rek li may dafa maa ngi koy def ci biir waaye ci bitti ma feeñal ko ci njaboot gi wallahi azim lépp lu ma leen defu jàppal ni seen bàyyi loolu laa ko def fexe ba lépp loo xam ne si mooy tax seen mbir jëm ci kanam na kanam rek ma ànd ak ñoom ca loola. man daal sëñ Mouhamadou Mansour mënu ma koo fay ci dara dara daara dara ca ni ma taxawoo noonu la taxawoo sama njaboot gépp nag kooku moom loolu duma ci dugg ndax loolu c'est personnel waaye loolu bu ci duggoon tey ngeen fàtte ngeen di sëñ Mansour deful la dara sa njaboot lay def say soxna say doom moo tax ma ne mbir yi mbiru sëñ Mansour na na ñëpp wax may déglu rek wax la ñëpp wax may déglu rek waaye bu ma waxee rek ñu dal ni ma wax ëpp na eh, ñu ngi nuyu soxna Aminta bu baax a baax ak njabootam gépp nag di gën a feddali sunu ngërëm ak moom ndax soxna Aminta kat wax dëgg yàlla yaakaar naa ni kuy njabootu Serigne Abbas teral na la ah jamono masaanam ku mosaan ñëw ci njabootu ko Serigne Abbas rek fii ngay dal ci kër gi ca da nga fi yëg loo xam ne si wax dëgg yàlla ah euh, la nga fa loo xam ne foo ko wax rek ne waa soxna amint sëñ Abass a ko tànnaloon boppam mu nekk modèle model boobu mu feeñal ko moo tax wax dëgg yàlla eh, man jamono ju nekk maa ngi koy maa maa ngi koy gën a waxal loolu ca foofu tamit laa yem ndax sori nan maag lool sori naa ak sama njaboot lool ah, léegi nag kon ñu li ñuy man rek di dëkkee di ñaanal njaboot gi yàlla taxaw leen yàlla jàppale leen bu baax a baax a baax te nag suñu xel dafa daal bu baax suñu xel dafa daal bu baax a baax ndax sëriñ Moussa Ba eh, sëriñ Mansour defal na ko gërëm na ko wóolu na ko man xam naa ci lu bare bare bare bare e préparé na ko préparé boo xam ne si exemple lay doon waaye tamit gis nañ tamit rakkam yi fi ko teg dëgg yàlla ni ko taxaw jàppale ko bu baax a baax a baax te man day wax dëgg su ma nekkoon Dakar heure bu nekk maa ngi fi de waaye bi ma ko joxoon ma ne ah Serigne Issa Seck mii ma xam day ku dëgg yàlla te taxaw naa sëñ suur taxaw wax ci moom lu rëy rëy te Serigne Issa Seck koo xam maa la ko jëkk a xam ku la xam maa la ko gën a xam man ne naa leen senegal kenn jàngalu fa benn sëriñ bu ne maa la jàngal ku dul Issa Seck amul kenn nag kooku mën naa ko feel waxoon naa ko ci ngigg ku ne jàngal ku dul aw mën ma ko kenn benn sëriñ ma ko wax ca la ma jàngaloon it xam naa xam naa la ma xam naa ko dem naa ba université fa jàng ci àgguma foofu kon suñ Issa mi xam naa ko ci ba ñuy ànd man moom booba yaakaar naa ne ñun ñaar rek a woon lépp rafet loolu bu ñëwee tey gis lu mel nii eh, loolu bëggul ma tudd nag ndax dafa naan jamono ji rek ne ma ne ko nag waaye nag suñ Issa yenn saa yi nit ñi ne mën na laa bañ a xam ndax nit dana dana woyofal boppam ba eh, eh, ñi réer. ndax keroog ba may wax jal daa am ku xawoon a jaxase xa bëgg a jaxase tuuti ma xamal ko kan mooy sëñ Issa mi sa baay gërëm na ko loolu moo tax bu nu gisee bu nu ko gisee seen kanam rek sunu xel dafay dafay dafay dafay dafay dal bu baax a baax a baax ba tax na daal e ñun ñu ngi gërëm mboolem mboolem ñu fi nekk di ñaan yàlla rek mbir mi sax bu baax a baax a baax ñun mënuñu dudul nin e, doon xoolee Serigne Mouhamadul Mansour di ko xoolee njabootam gi ndax gis nañ Euh, sunu xel sunu xel dafa dal ci ñoom buñ gisoon ñu jaar beneen yoon sax daan xaw a jaaxle waaye wax dëgg yàlla yoon wi ñu jaar dalal na suñu xel bu baax a baax ñun mënuñu lu dul di leen gërëm bis bi tamit comme lu ñu leen wax rek bu ma soñoon di wax dëgg yàlla ci suba laay ñëw waaye bu du woon ak àjjuma ji kenn du ma fi jiitu ndax bu lii amee rek xel yi bari daal nekk ci man te sëñ Moussa Ba waxuma ko ndax daa xam ne moo ko waxee naa bàyyi lépp ñëw waaye mbirum sëñ Mouhamadou Mansour du ma ci xaar ñu ñu wax ma ci du ma xaar ñu def ñu su ko defee daal eh, ñun amuñu lu ñu wax lu lu ëpp lii ndax suñu xol fees na eh, léegi sax laa mën a wax waaye bu may ñëw sànq ñuy wax mënu ma a wax waaw mënu a wax ba tax na daal eh, ñaan yàlla rek li nga xam ne si mam laa man moom la ñu yéene yàlla mbottali ñu ko ci jaboot gi ba ñu tase ci kanamu Serigne Abbas ñun ñëpp duggandoo àjjana ndax sëñ Mansour sooy nan man ak moom lool lool lool walaay nekk nañ ci Màkka maag moom ca Musdalifa mu wax ma baat boo xam ne si ca euh, euh, mus baat boo xam ne si du ma ko fàtte ci adduna bi loo xam ne sama digganteeg moom la woon loolu nag bi nu gisee njaboot gi bëgg di doxal na mel noonu ñu suñu xel day gën a dal bu baax a baax a baax a baax ba tax daal xam leen rek li ngeen taxaw dinaa ci ñëw ànd ak yéen jàppal leen ca loola dégg nañ seen wax itam bu baax a baax léppar nañ ko parce que Moussa xale nga doo xale sax ndax nit islam moom ku am vingt ans la dootoo xaleti waaye nag bu ne xale nga mooy ci génération bi nga nekkal say morom ni nekk loo tax ñaan xale nga waaye nag wax dëgg yàlla fi la sa bàyyi fekk woon yaa nga fa di ñaan xale yi rek ñu ñëw jàppale la ci loolu ko daal ñu ngi ñu ngi gërëm boolem ku fi teew eh, eh, sant yàlla tamit bi mu boole ci lii ndax itam ba bi ñuy dugg Dakar ne woon naa du ma agsi ba bi may ñëw it ne woon naa du ma leen fekk waaye nag naa ñëw ci kër gi Eh, eh, sant yàlla bi ngeen xamee tamit xam nan lu tax li tax teelu ma fee ñëw loolu moom kii bu ko defee eh, damay yemale fi kàddu gi ndax may wax duma am fu may du ma <laughs> du ma xam fu may yem ndax ci xol bu fees la ñuy waxe waaye nag yaakaar bu rëy la ñuy waxe salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf Mouhamed Al Habib mu ne ñun ñëpp na wax nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax sos mbir mu ni ndax nga sos mbir nga sos ko te yàlla rek koy sos sama borom rek moo taxoon nga koy sos nga jóge fi nga jóge fi ñi nga fi bàyyi ñee xam ni ñoom nga bàyyi sa gannaaw la nga sosoon ñu yokk ko la nga sosoon wàññeekuwul ñu yokk ko kon alhamdulilah kon loolu alhamdulilah rek moo ci ñun ñëpp na ne alhamdulilahi rabbil alamin ne sëñ Ibrahima nga gis ka kon léegi jëmm yu bare la. kon nag léegi moom sëñ Mansour. radiyallahu anhu jëmm yu bare la léegi. te itam suñu xel dal na. sëñ bi mu ni alhamdulilah xel doy xel doy dal na. ndax Moustapha dégg nañu wax. ndax sëñ Moustapha dégg bu baax li nga wax. dégg nañu waxu maamam Serigne Abbas. dégg nañ tamit sa wax maam Serigne Abbas radiyallahu taala. dégg nañu waxu baayam Serigne Mansour. dégg nañ tamit sa waxu baay Serigne Mansour radiyallahu taala. mu ñëw tegu ca foofu. nga ñëw nag yow Serigne Moustapha nga tegu ci kaw foofu. moo tax malgré baayam lañu mais mu ni malgré ñoom ñi seen wajulul mais ñi ngi toog nag di la déglu. di la wax ni lépp rafet na. di la wax nag wax ji yëpp rafet na. foofu nga teg sa tànk foofu la. foofu daal nga teg sa tànk foofu la. boko ko fa teggee ñu xëcc sa nopp. boo ko fa teggee ah ñu doxalee neneen. te incha allah doo ko fa teg. te incha allah doo ko fa teg. ndax yar nañ la. ndax yar nañ la ci. jàngal nañ la jàngal nañ la ci. tabaarkalla fa tabaarakallah fa tabaarakallah. li imaam Mayoro maam Mayoro li mu wax Sëriñ Mansour day na. mu ni maam Mayoro li mu wax Sëriñ Mansour day na sëkk. Issa li mu wax Sëriñ Mansour day na. Issa li mu wax Sëriñ Mansour day na sëkk. ndax itam. mu ni ndax itam wax waxaat lay nekk wax waxaat rek lay nekk. waaw di gërëm sunu baay bi jóge daga jóge. di gërëm Thierno sunu baay bi jóge ba Ross Béthio. waaw ni ko sëñ Moustapha waxee. ni ko sëñ Moustapha waxee léegi. leeral nga jotaay leeral nga jotaay bi Thierno. yàlla na nga fi yàgg ñëw. yàlla na fi yàgg ñëw di di ko taxaw amin eh, di gërëm ki nga kenn ki nga xam ne ci njaboot sëñ mu ni nag ñu ngi gërëm kenn koo xam ni kenn la si njaboot gi. duy maq ban bolu meew lay maq. moom du maq ban bolu meew lay maq. maa ko laaj Serigne Mansour. mu ni moom mii sëñ Chérif mu ni moo ko laaj Serigne Mansour. yàlla dafa dogal. sama borom dafa dogal. Serigne Abbas taalibe mi am nañu diine trop. Serigne Abbas radiyallahu anhu taalibe mi am nañu diine lool. waaye ci wàllu njëriñ. waaye nag ci wàllu njariñ amuñu ko amuñu ko. xamuñu joxe. xamuñu joxe. xamuñu seen sëriñ di liggéey. xamuñu seen mu ne loolu nag lu garaaw la. te loolu baaxul. te loolu baaxul. ma ni sëriñ bi. nee na mu ni sëriñ bi. sa taalibe yi. sa taalibe lu ñuy maq ban rek. lu ñuy maq ban rek. mu ni moom balu meew lay maq. mu ni ko kii nag muy bëgg wax balu meew lay maq. muy Coulibaly. mu ni muy Coulibaly mi toog. di xale bu baax. nekk xale bu baax. lu Moustapha yëkkati. lépp lu Moustapha yëkkati. mu yanu ko mu yanu ko. te du ci wax. te du ci boole wax. yal na la yàlla jàppale. Coulibaly sëñ bi mu ni yal na la son borom jàppale wax leen amin. ku baax la de. ku baax la de. def na. son def na. man sama copain. moom mu nekk copain bi ma bi ma jógee voyage. moom sëriñ ba nee na ba mu jógee voyage. ndax man maa ngi woon euh, euh, euh, Côte d'Ivoire. nee na ndaxte mi ngi woon Côte d'Ivoire. ñaari fan laa fi def. ñaari fan la fi def. sëriñ bi dem Barzak. sëriñ bi dem Barzak. dem xadar Tijani. dem xadar Tijani. dama ñëw. mu ni dafa ñëw. di ko seet si. di ko seet si. jëndal ko parfum bu neex. mu jëndal ko parfum bu neex. mu ñëw ci kër gi fekk mu nekk clinique. mu ñëw ci kër gi fekk mu nekk ci clinique bi. ma ni damay bàyyi ba suba. mu ni dafay bàyyi ba suba. ma ni daal mënu ma ko muñ. mu ni daal li daal mënu ma ko muñ xaaral rek ma dem. ma fekk Kulubali di liggéey. mu ñëw fekk Kulubali di liggéey. pour wax leen rek cër bi mu am. pour wax rek cër bi nga xam ni Koulibaly am na ko. te bu bañoon te bu bañoon nag. addinaam dafay daal di yàqu rek. ma ne ko man de. nee na mu ne ko Koulibaly man de. sama xel dafa nekk sëriñ bi. duñu ko seeti. duñu dem seeti ko. mu ne ay ca mu ne ko ay ca. ndeke lañ koy mujj gis. ndeke ne bis boobu ñoom si leen koy mujj gis. Moustapha ngi di fekk na sëñ Moustapha mi ngi nii fekk na ko. ak Salih ak Salih ak xoola eh, eh, eh, bii chance mu ne xoola bii nangu. bu doon ñenn ñi. bu doon ñenn ñi. ay taalibe kër gi de. dañuy lay. duñu lay. sëñ Mansour dem. duñu ko gis. seen àddina di yàqu. waaye moom. waaye yow Coulibaly. dafa ànd ak man. da nga ànd ak moom. bi ñu ñëwee. ba nu dellu see. Mansour dégg sama baat. ba nu ñëwee sëriñ Mansour dégg baatam. ni Moustapha kuy wax. ni kan may wax. booba mi ngi xaw a sonn. booba nag mi ngi xaw a sonn. mu ne ko sama pap Chérif. mu ne sama pap Chérif. mu ne ko sama waa ji. mu ne ji. sama médicament. mooy sama médicament. ma dugg si. nee na Chérif sëñ bi nee na mu dugg si. àndal Koulibaly. àndal Koulibaly. sëñ Mansour kontaan. sëñ Mansour kontaan. ni ma ñoo bokk xarit. ni ka nag ñoo bokk xarit. loolu nag du lu tuuti Coulibaly incha allah Coulibaly sama borom dan la fay lépp lu ñu yëkk ci kër gi nga taxaw ci jërëjëf moom ku ne xam nga ko moom yi sax du du du ak waaye ni yu mel ni di ko wax baax na day tax ñeneen ñi góorgóorlu eh, teraanga baax na Badara Sall ngi Badara Sall ngi nii léegi laa ko am lu ma ko jox léegi lu am lu mu ko jox hadiya يلا خمنو كده يسون بروم سيرنا ك ماتول سامي ماتول سامي نيت مصطفى نياني بمص سامي مصطفى نياني من يب دنا من لب دنا با نيو كتلوغا نيو كتلوغا تسمى مانغازين تسمى مانغازين يا يو يو مفدفون مو أمي مفسخ مو أمي مفسخ أي كوران mu ay courant xale bi woo ma xale bi woo ko yónnee ma ko yónnee ka ka ni ma ñëw nañu ni ka ñëw nañu defar nañu ko defar nañ ko te waroon na ci fay cinq millions cinq millions zéro la ci fayul kon ñaan gi nangu na adiya tamit nangu na waaye di leen joxe waaye wallahi lu am solo mu ni dee déggu leen lii lu am solo la mais julli gi am na solo mu ni julli gi am na solo werdi bi baax werdi bi baax na mais di joxe waaye di joxe dafa baax dafa baax sama mbokk murid mbokk suñu mbokk murid yi dama leen naw lool mu ni dafa leen naw lool xam nga lu fu ñu fu ñuy gën a avancé mu ni fu ñu gën a avancé nit ñi joxe joxe tey jii tey mu ni tey jii tey Moustapha woote lii Moussa sëñ Moustapha woote lii mais am na ñoo xam ne mais am na ñoo xam ne waroon nañu indi nag waroon nañu indi nag wala xar wala xar wala lu ko néew waaye dañuy reer rek waaye dañuy reer rek waaye du noonu yooyu baaxul man sëñ Mansour moom ñun ñëpp xam ne fépp fu mu mas a nuyu sëñ Mansour da koy jox hadiya fu ma jox nuyu sëñ Abass jox ko fu mu nuyu sëñ Abass jox ko hadiya moo tax sama poche moo fu mu lamb dara da ciy fekk ah, parce que mbir yi da ngay ñàkk nga ñokk mu ni mbir yi da ngay ñàkk wala nga ñokki waaye naan sëñ Abass amul morom waaye naan sëñ Abass amul morom rek loolu doxul ñaan nañu yàlla nangul ñaan yëpp sëñ bi mu ne am na yoon bi nga xam ni daf ko fa fekk gétt béy la ko indil. gétt béy la ko indil waaw. gétt béy la jiital. dugal ko ko. ñeenti béy ñeenti béy muy gétt béy moom Cherif la indi mu jiital ko dugal ko. Serigne Mansour génn. Serigne Mansour génn. daal di lii kat yaa ko séddee. nee na sëñ Mansour nga maa ngi la doon wax Cherif sama xarit la. far gis nga nag la sax mu ngi noonu bokk. mu ak man ni ma bëggee béy. mu ni mu sëñ Mansour ka man ni ma bëggee béy. mu indil ma ñeenti bay nii. xam nga loolu tubaarkaal ñu loolu tubaarkaal léeg noonu loolu moom moo ko fekkee. kon na yàlla li ko Moustapha waxee. sëñ sëñ bi nee na mu nag ni ko sëñ Moustapha waxee. woote bi mu woote. woote bi mu woote. moom mi woote. moom mi woote. ak ñu ko wuy si. ku ci ëpp ñu kan moo ci ëpp njëriñ sa morom. abaakum wa abnaakum laa tadrun ayyuhumu aqrabu lakum nafa bàyyi ak doom yi bàyyi ak doom yi ku ci ëpp njëriñ sa morom. ñu ni budul woon doom bi. góor gi ngay góor gi ngay tudd ku la jox turu baay am na lu mu def ci yow waaye bu doon baay fa nga ne taalamul awraax fa ngay yenn rek la la fa génne indi la am na lu mu la defal kii woote Moussa sëñ Moussa ba mu wootee bu ngeen ko wisuloon dana na wéet وينك ووتي بموتي تلن عملي تلين عملي والله والله دنا نجرن ادنا جرن الاخره اجنا موم اجنا موم بولن كو خالات بولن فدم نخ بونو فا نارول وون دم نخ بونو فا دوكو فك موني يي ناوي دا فا ام سولو خيب نانكو خيب نانكا تي ظاهر واي تي باطل لو ريلي تي سمرم lii nii lii nii fekke ko nga fekke ko ba pare ñibbi ba pare ñibbi di xalaat ëllëg di xalaat ëllëg safara safara waaye yow amuloo fayda wallahi wallahi yaa xay yaa xay incha allah incha allah yàlla dana ci jaar sama borom dina ci jaar faj aajo yi faj aajo yi sa dafal ñu gudd fan dafal ñu gudd fan ak wér ak wér maa ngi dégg léegi. nee na mi ngi dégg léegi. Amad Fall di wax. Amad Fall di wax. ñu gudd fan. ñu gudd fan. perfusion perfusion. ak perfusion yi. yooyu boo tuddee tudd perfusion yi. da ngay rafet njort da ngay rafet yàlla da ngay rafet njort. sama borom da ngay rafet njort. boo rafetee njort. boo rafetee njort. te njort ba mu ànd ceeg. bul tudd loolu bul tudd te loolu. waxal gudd fan rek. jàmm. ci jàmm. te nag damay wax ni addina bi. sëñ bi mu ne dafay wax ne addina bi. dafa neex dafa neex. addina bi naqadiwul addina bi naqadiwul. wallaahi wallaahi. boo ko neexalee boo ko neexalee. day neex day neex. boo ko naqadilee boo ko naqadilee mu naqadi. neexal leen ko neexal leen ko. jégal sa bopp il faut positif il faut positiver. ci àddina ci àddina bi négatif baaxul négatif baaxul. da ngay fexe da ngay fexe. ngay positiver rek lu am rek. nga ne alhamdulilah waaye boo ko kaanee waaye boo ko kaanee mu kaani mu kaani yàlla musal sëriñ Mansour fa mu ne Mansour tey fa mu nekk ca baayam ca baayam wallaahi wallaahi kontaan na tey aw ma ci sikk moom mu ne amu ci sikk la fi ci ba zahir nekk fi ci zahir mais mi ngi fi ci baatin waaye lu ëpp loolu waaye lu ëpp loolu am fi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 صدق الله المولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو ونسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان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 واكتبنا على التمام والكمال والمهذب من كل الحال اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وذقنا فضل من قرأوا مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشار والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلال والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان أمنا من عذاب القبر من سؤال منكر والنكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وذق ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان وذقنا جوار سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم وأكرمنا بلقائك يا ديان سجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والذبور والفرقان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 اللهم زينا بدينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بحلعة القرآن وعفنا من كل البلاء من كل بلاء الدنيا وعظام الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وبالقيام الشفيعا وعلى صراط نورا وإلى جنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعفنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن لنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضية القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن الحلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صورة سلاما وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا بألف الفه وبالباء بركة وبالتاء توابا وبالثاني ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال جنوا وبالذال ذكاء وبراء رحمة وبالراء ذلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاء ضياء وبالطاء طهارة وبالضاء ظهرا وبالعين غلما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية من لطفة وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواء وصلا وبالهاء هداية من الأليف لقاءك وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا إلى روح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى روح شيخنا عباس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 ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين آمين آمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يأخذ بالجليل ولم يهتك الستر ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا وصي المغفرة ويا بصير برحمتي ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مقي العهرات ويا مبتدا بالنعم قبل استقاقها ويا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا ربي أن لا تشوه خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار اللهم انصرنا الله الله اللهم افتح لنا ولكم كل أبواب الخير اللهم استرنا يا ستار اللهم الطفنا يا لطيف اللهم ارزقنا يا رزاق اللهم اهدنا يا هادي اللهم احفظنا يا حافظ بحق كن أهمنا الله كن فيكون حاجتنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام في الدنيا والآخرة والسلام بيننا وسلام في خروجنا ودخولنا وسلام في حركاتنا وحياتنا وسلام في ليالنا ونهارنا وصباحنا ومسائنا والسلام والسلام والسلام آمين آمين آمين والحمد لله بعد salaatul fatih zawiya bee ca Ndar zawiya Maam Maodo biir Ndakaar zawiya Tiwaawan ëmb bi mu tasiw ko aw ñoñam yéen a ngi Al Maktoum TV